moo bëri doole PDS moo bëri doole PDS xamante ne seule la survie du parti démocratique sénégalais moo leen intéressé peuple bi nga xamante ne ñoo amoon yaakaar am espoir ci président Macky Sall ba jox ko réew mi mu xëy suba mënut a saafara jafe-jafe askan bi ne wàññi mandaam bis bu ko defee. nañ ko porter plainte pour haute trahison parce qu'il a été élu pour sept ans nañu taxaw bokk ànd longo pour faire face à ce régime d'incompétents bi nga xam ne askan bi yaakaaroon nañ leen pour ñu saafara jafe-jafe réew mi comme mënuñu ko nag nañu entamer une tournée nationale parce que askan bi sonn nañu foo laal tey si réew mi mu ngi metti du tëj opposants yi dugal leen ci kaso mooy tax nit ñuy arrêté li ñuy def du du fekkente ni tëj Karim Wade ci kaso bi walla tëj Oram Omar Sarr ci kaso bi walla tëj Johnny Ba ci kaso bi wala tëj Cheikh Alassane Sène ci kaso bi muy ay otage politique du ñooñu mooy tax ñu arrêté suñu wax wala arrêté suñu combat ñun Sénégal rek moo ñu intéressé dara intéressé wuñu lu ñun Sénégal maître Wade nit ñi dañoo nax askan bi trompé askan bi jël fal fi ñi nga xamante ne mënuñu saafaraal jafe-jafe askan bi kon nag askan bee leen faloon nañu taxaw faire face bu fekkee ne dañuy tëj nañu ubbi prison yëpp xam ne ñëpp dañ si dugg